leen ndokkeel ci weeru tëdd bi weeru rajab rajab al farda di yëkkati kàddu yu bàyyi ko ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha al xalifatul am li tariqati muridi xafidahullahu taala waraa di ndokkeel bokk jullit yëpp ci weer wi di yëkkati kàddu yu gàtt rek yu bàyyi ko ci moom ci Cheikh mu Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd ak muy loo xam ne doo koy jëmale ci ñi nga xam ne ñoom la sañe digal sañ leen tere te mooy ñi nga xam ne ñoo di ko jëmee nag ci mboolem ñi bokkal lislaam ji yëpp mi may yaqbalu nasihata min axihi muslim di ko jëmee ci mboolem ñi nga xam ne ñoom la bokk réew mi dañ bokk dëkk ci biir réew mi muy loo tànn suñu borom la kon sëriñ bi neen mi ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di ñaanal ñëpp ngir xam ne li nga xam ne àdduna sépp ñu ngi koy tiit ak ragal muy mbas mi nga xam ne tàbbina ci biir àdduna si ba yàlla def mu agsi ci biir senegal ñaan suñu borom mi nga xamne moko tek nit ñi ndax loolu itam nañ xam ne na ma ko waxoon ci poroxaan jeek ci lay dellu si waat yàlla wax na ci alquran ne doomu adama lépp lu ko dal rek na xam ne moo ko teg boppam fi al fasadu wal bahri ma kasabat aydi nas li yuziqahum ba'da allazi amilu la'allahum yarji'un kon fitna ji sa su ngeen gisee muy bala yàlla wàcc ko ci kaw àdduna rek suñ borom lam ci jublu mooy bëgg ki newutoon ci yoon dellu siwaat delloo lépp yàlla ndax fi mu nii la suñ ok yàlla suñ borom képp ku fàtte rek da da koo neex waaye bu la fàttalikoo rek nga delluwaat ci moom kon loolu mooy li amaat ci lii luy seqam baax di la si amilo laalahum yarjiun kon nañ xam ne bu ko kenn ku ci ne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 القرآن آه، الدين أكل الآخر لشيء لشيء أبلم جسنتاني نخ وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا كون بوي جامو يالا نغي جامو يالا بام مين دين لا واخ نه الله نغي فار كوم نيكو ني نكوي فارال دي ولا تنس نصيبك من الدنيا لول موي دا نغي ليغيال ادنا بام مين نه دا نفي صاح بفاو كون ادنا ak الآخرة لو تي ندي سي Serigne Touba waxoon na Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Fadil ne leen yaar rek a fi ne adduna ak alaxira mën na leen alaxira mbirum suñu borom la suñu borom la li mu soxla mooy ak yëg adduna nag mbirum adduna la kon lim laaj mooy yëgoo kon lu ngeen def di leen ci yëgoo ci loolu nag Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi nekk Serigne Touba xam ne itam julit yëpp ak njabootam lañ ndax Serigne Touba.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 wérdi gi yonent bi sallallahu alayhi dafa waxoon firra minal majzumi firaaral asadi nee na wopp ji ñuy wax ngaana nanga ko daw ba mel ne kuy daw gaynde kon loolu rasulullahi moo ko santaane la ma ci waxoon ci poroxaan ji laay fàttaliwaat nee woon na euh, Abu Ubayda bi nga xamee ne Seydina Omar mi ngi doon seeti armam bi nekk Cham far yàlla ba muy bëgg dem ñu yëg ne mbas xew na ci dëkk ba dafa diisoo saxaaba yi laaj leen ba xam lu war a def bi mu diisoo ñoom am ku génn benn xadis boo xam ne Sayyidatuna Aïsa moo ko andi mu wax ne rasulullahi sallallahu alayhi wasallam na lu mel nii boo xewee ci dëkk ku mu fekk ci dëkk bu fa jóge bu fa kenn bàyyi koy dem feneen kum fa fekk itam la fa dal na nga fa toog loolu boo koy seet ba nëgë ni xam-xam weesoogul loolu boo xooloon tey ci àdduna fi mu toll ñu yëngu ci wàllu médecin nattuwaay yi ñuy wax loolu dara jitoo ko ci tey àdduna sëpp yaa ngi dégg ba ci màkka yëg ngeen ne ombre ga fan yi tëj nañ ko kon nag euh, boo demee ci réew tubaab yi itam dégg ngeen di ci xew kon loolu itam ñu xam ne suñ borom mooy doxale noonu àdduna kon ñoom itam nañ leen ci diglu cër bi leen ci yàlla joxe tam ñu delloo leen ko ñu ngi leen di sant nag bu baax a baax ndax yëg nañ ba mu duggee ci réew mi ba tey ñëpp def nañ ko yite ndax wéer di kat nañ xam ne jombul kenn jombul nit ku baax jombut nitu adduna ndax ca yooyu jamono Abu Ubayda moomu ba Seydina Omar waxee ñoom bañ wax ko ne ko na Abu Ubayda da ko wax na ko ndax dangay daw dogalub yàlla mun na ko damay daw dogalub yàlla ngir dogalub yàlla moom moom yàlla def na ca ci ci ci mbas la faatu Bilaal ibnu Rabaah ci mbas la faatu Muaas ibnu Jabal ci mbas la faatu ñooy ay saxaaba lañ te saxaaba kon xam na seen daraja kon loolu jombur kenn Sëriñ Tuubaa wax na ci Jawharun Nafiis ne is laysa ahadun maasuman min al marad yàlla amul mbenn mbindeef moo xam ne musal na la ci jàngoro kon loolu nat la bu yàlla teg ni mbindeef la ñu ci war na kon li jiitu mooy dellu ci yàlla ñaan waaye nag saw bu saaxir si nga xam ne suñ borom doo ko santaane ndax eh, Sëriñ Tuubaa mastaa wax ne yàlla wàccewu fi ay malaayka ñuy lijjanti ni ñi ay nit la fi indi ngir ñuy lijjanti nit ñi bu fi ay malaayka nekkoon ci suuf kon mu yebal fi ay malaayka ñoo leen lijjanti qul law kaana fi l ardi malaikatun yamchuuna mutmainina la nazalna alayhim min alsamai malakan rasulan walaw jaxalnaahu malakan la jaxalnaahu rajulan kon ay ay mbindeef la fi indi nag indi leen ci kaw suuf ngay ñuy lijjanti mbindeef yi moo tax moo santaane na atiiu llaha wa atiiu rasula ulil amri minkum ki ci wàllug adduna sax di kilifa lim la digal ak lim la da nga ko war a topp ci loolu loolu lislaam ko santaane kon loolu ñoom itam cër bañ ci am nañ leen ko jox te diglu leen ci te ñëpp gën a wattandiku rek lépp loo xam ne euh, dana mën a tax jàngoro ji di wàlle te la ci lépp nag ñu delloo ko ci yàlla te xam ne suñ borom ni ko tege waxtu waxee ne dana jeex rek dana tàggoo ñëpp di fàttali itam nag euh, Serigne euh, ñaan yi nga xam ne daana ko ci santaane ndax خسيدك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهاكم هذه الأبيات شفاء من كل دائم وحسنا حسينا من مكائد جميع العداء يا ربي بالمصطفى المختار من مدر شفيع أمته في البدو والحدر عليه الصلي بتسليم بلا عدد في الآل والصحب وعصمنا من الضر إلى آخر القصيدة قصيدة جوجو نكون نيب مورا الشيخ محمود منتخب سنتان ونكون ديم بجوح تنديل danañ ko mool tasaare ko ñëpp di ko jàng xasida ak Madabu Chifa yi xam ngeen ne Serigne Touba xam ngeen la taxul mu def ko booba euh, as euh, soxna Faati Isa wax ne ni ci saaxir sa moo doon taxaw sëñ bi moo tax sëriñ Touba taalif xasida gi googu ñu koy digal ñëpp ñu di ko jàng ngir yàlla musuñu ci wérdi gi ba ca dolli ko waat it mooy wakkaane xàqan wakkaane xàqan lu mel nii dafa mas am ca Mauritanie mbas mu jot ci dugg fa am ku gént ñëw ci Serigne Touba ne ko dañoo yëg ne am na mbas mu dugg ci biir réew bi mu xewee nag dangaa taalif xasee wakkaane xàqan biñ ko jàngee rek mbas ma tàggoog ñëpp Serigne Touba daal génne ci biir génn xasee wakkaane xàqan mooy mbindu mu taxib mbas ma tàggoog ñoom kon nañ boole zaw bu sahir ak zaw bu baatin ndax lu ci ne dafa am inna makkanna lahu fi l ardi wa aataynaahu min kulli cheyin sababan fattabaa sababan bokkatan abdan aataynaahu rahmatan min indina wa allamnaahu min ladunna ilman kon nag ñi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di xam ne lii Cheikh Mouhamadou Cheikh Mouhamadou Mountakha def nag da ko doon ci رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع واحد القرآن لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله كيف كو خانا تانغا سامورم ديكو ديمبولي كون لي تام نان خامن لي سي جيتو موي ديمبولانتي اك اندو نيب نيك وين ساي نيك وين بوك بين بوغ بوغ فيها با تاغو موم نداخ وورو فيك دي ني واخ نه سوخلا بودي نياار دا فك اك وين نفا ndax fi mu nii àdduna ci boo ko doon seet xew-xew yëpp kenn talatu ko ñëpp ci lii lañ jëm ndax kat boo amut ndax euh, mbas wax nañ day jur bekkoor ci biirum réew loolu nag dogalu suñu borom la waaye li ci war doomu aadama ci gàttandu ko nag war na ko def Seex Mouhamadou Mountakha nag euh, Serigne Touba xam ngeen ni ci gerub 14 18 bi nga xamee dem na ba réewum France jaaxle. ci ay soldaar tam am ci ndigalu borom nag ci ay saw bi xóotu xóot ci de Serigne Touba joxewul ay soldaar bañ demee ba xaalisu France di bëgg daanu itam Serigne Touba dafay yëkkati ci yooyu jamono téeméeri junni muy xaalis bu bari nag ni ba xaalis France daanuwut Cheikh Mouhamadou Moustapha xam ngeen ne ca ñam jamonoon teeloon eh, ba ñuy xëccoo moo yëkkati xaalisam jox leen. Cheikh Mouhamadou Fadil dégg ngeen histoire bi umput kenn diggante Lamine Gueye Senghor ba ñëwee di xëccoo dafay yëkkati xaalis jox leen Lamine Lamine Gueye jël Senghor delloo xaalisam ne ko li may bëgg bu moo ko wutee dinaa leen jàppale ci seen jumaa ji Cheikh Abdoul Ahad moom itam xam ngeen ne fu jamono masaar gi fii daana jënd ay camions ton ceeb ak dugub di ko séddale ci waxuma Tuubaa waaye ci biir réew mi ba daj ba ci këri diine yi kon loolu lu ñu fi fekk Cheikh Abdou Khadim Mbacke itam naka jo naka noonu noonu la ko daa defee Cheikh Saliou Mbacke itam yéen a ngi fàttali ko Sonacos ba mu fi xaalis ba mu yëkkati woon joxe ko Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke itam ci xilaafam defoon na lu mel noonu ba ci ki ci mujj nag di ak Cheikh Sidi Moukhtar yàggut bi nga xamee ne mbënd mi dañ na Sénégal. mu yëkkati jéggi bu rëy loolee itam lam si jubluwoon rek muy yëkkati milliard ngir soññeeku ni ñi kon nag loolu sëriñ bi foofu rek lay waxe hmm, ginnaaw boo xamee ne yëkkati na loo tàmbalee daal mu ngi diggee ñëpp lépp lu ci waaye mën a def ndax diis na ci loosu kenn donte ñoom sàkkuñ ko ci moom nag kilifa du toog di xaar bañ di ko wax waaye xam na ne ci Sénégal gépp ak njabootam lañ. mooy ñi ci doon taalibe Sëriñ Tuubaa ak ñi ci doon ay taalibe Sëriñ Tuubaa ñëpp njabootam lañ ñëpp la jabootam boo sañoon ñëpp ne jàmm kenn bañ nekk ci fitna ndax alxuraan kat wax na ne wattaqu fitnatan laa tusibanna allaziina zalamu minkum xaassatan wa'lamu anna llaaha shadiidul iqaab wattandiku leen fitna ndax du ya li wolof di wax ay du yam ci bopp borom ku jàpp ne da nga cee mucc itam yàlla mën naa def ci dogalam mu agsi ci waaye nag nañ xam ne du lu ñu daw nag. ndax alam tara ila lazina xaraju min diirihim wa hum ulufun xasara almawt fa xaala lahum allahu muutu kon dee kenn mënu ko daw kenn mënu ko daw aynama takunu yudrikum mawt wala kuntum fi burujin mushayyada bu fekkoon dangaa tabaxoon ay xunt yu xóot suñ borom fekk na la ci si biir xunt ma rey la kon loolu lépp ay sabab la waaye li ci sababu saahir nag ginnaaw buñ delloo ci yàlla wakkiilu ci moom itam li ñuy wax tawaakul itam buñ ko def mooy yem yem rek ci loolu waaye lii sababu saaxi sam yàllaa ko santaane te bëgg àddina yu doxe noonu Sëriñ Tuubaa leer noonu ci lu bari ci li tax suñu borom tubaab yi mu dénki leen adduna kon loolu itam nañ ko xamee noonu kon ñi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ci yàlla eh, nit ñi gën a bàyyi xel gën a wattandiku ngir xam ne jàngoro ji jombur kenn kenn koo xam ne mën ngaa garanti sa bopp ne ci mucc itam amut yàlla képp ci mën musalit kon nañ dellu ci yàlla tuubal ko sàkk sarax jéggule te dimbaleen di suñ biir loolu mooy ndénkaane sëriñ bi mi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa xanaa rek dañuy teew sëñ bi ñu mën a def. waaw kay tàllal leen amin amin amin amin nga yàgg fi lool Serigne Mountakha yàgg fi lool kilifa diine yàgg fi lool barke sëñ Touba te ne ñëpp ñaan li Serigne bi wax nañ ko dégg nañ ko jëf jërëjëf Mbacke amin amin amin Mbacke. amoon mbokk yi loolu moo doon euh, kàddu yi jóge ci euh, Serigne euh, Bass Abdou Khadre fii ci këram gi nga xam ne moo fare fii ci VDN bi ci Dakar mi ngi noonu kon wax na ñeel coronavirus bi nga xam ne moo. Euh, dugg ci réew mi rawatina fële ca Touba ñu nemmeeku fa ay kaawu euh, coronavirus donc euh, sëriñ bi nee na sëriñ Muntaxa Bassirou jox na ko ndigal euh, mu joxe deux cent millions ci euh, contribution bi nga xam ne euh, yoonu murit contribuer nañ ko ci dispositif bi nga xam ne mooy dispositif de sécurité et de veille ñeel coronavirus boobu mi ngi noonu kon Serigne Bass Abdou Khadre digle tamit ay digle yi nga xam ne dafa jóge ci eh, sëriñ bi nga xam ne mooy sëriñ eh, Muntaxa Basirou di xalif eh, General des Mourides digle yooyu nag bokk na ci jàng ay ay limu xasida am na ay xasida yu fi tudd yoo xam